courant deux cent vingt trois cent quatre vingt lu war a toll ci kaasu gasoil moom lay jël bu xasee ba tàkk moteur bi fay mu continuer moom di tàkk vingt quatre sur vingt quatre. lii ma teg sama loxo. mooy moteur bi nga xam ne moo koy alimenté bu ko alimenté ba pare nga bës contact bii bii kiy déclenché. bu déclencher, kii jël alternateur bi jël bu alternateur bi jëlee ba pare nga bës bii dynamo bi déclenché bu déclenché ba génne 380 nga fay bii embrayage bi taxaw nga daal di fay moteur bi fii bu ko defee mu génne di la génneel courant boo xam consommation benn du ci am léegi kii moom mooy tourner kee ba muy génne courant di dox normal kappa yii ñoom ñooy li nga xam ne ñooy am sarge bi ba du faible du wàññi ko du def dara liggéey bi nag xalaat bi li ko gën a yokk mooy Ibrahima mi nga xam ne moom moo àtt na financer alalam ba nu toll fii ba ñu duggee ci biir liggéey bi lii ngay gis nii damaa dem ci tourneur yi ku ñuy wax Matar ca boor yi euh, euh, Daaru Marnaan ba ko ko waxee moom it daf koo jàppandal lool ànd ceeg man it ma dem wut volant moteur yii moom moo ko allégé ba mu rafete nii ba mu mel nii yii yëpp moo ko monté soudeur bi it aale caam fa laa jëkkee ba fa jëkkee lépp lu mu fi dagg nag man maa ko sant daggal ma lii defal ma nii tegal ma fii mm, tegal ma fële mu tegal ma noonu weranteewu ci man ba frère bi ñëw mu boole ma ak moom di Mbay Jóob mu continuer man liggéey bi ba mu yëg si fii ba nu leen ko peinturé liggéey bi nag ñu ngi ciy sant yàlla di ci sant yonent bi ndax lépp Serigne Aliou Fall la du kenn Serigne Aliou Serigne Aliou kese waaw moo nu jàppalee lii yëpp borom ba war jeex na de. waaw xam nga kii dama toog ba toog naa ci xalaat ci nga xam damay toog di def ay analyse di ko étudier de onduleurs yi laa jëkk di di monter ji ci àll bi. di ko wutal ay chargeur di ko monter waaye ma toog ba ci yàgg ma xalaat ne volant yi di contrepoids yi lépp lu mu entraîné parce que fi ne mu ngi nii bu tourné dootul taxaw dootul taxaw bu xasee ba tàkk rek dootul taxaw léegi kii bu taxawee moom dootul taxaw ndax génne na 380 ba dynamo bi ja déclenché na ba pare fekk fayuloo ko du fay. idée bi damaa dem ba xool ne lii lu war a mel na nekk la ku ñuy wax dan sëy nekk ci kër sëñ Mourtala bi laa ci jëkkoon a defal ay analyse bu ndaw bu ndaw laa ci jëkk defar kii kii bi ma ko ko waxee tegu ci baat fekk ma am lu mu ma liggéeyloo ci ca Ziguinchor tegu ci baat loolu daal di jël finance rek financé xoolu ci leen mooy ginnaaw yàlla bu yeggee ba fii yàlla ak bakkanu Ibrahima jóob la ndax bu ci financé wut def ci alalam lii du mën a am ndax man dong mënuma ko financer te keneen koo ko waxoo ne ah day wax rek daa bëgg a lekk sab xaalis kon moom mi dëgër fit gëm yàlla gëm yonent bi dugg ci ba fii kon lu luñ ci am ak fuñ ci toll yàlla ak bakkanam la. kan kii kii kii li ci dem ëpp na mat na 3 millions ëpp na ko sax ndax lu ci bëree bëri ñu ko xayma ndax liñ ci jënd moo bari ndax groupe bi ñu jëkk jënd dama ko xol muy alternative bi ma jëkk jënd dama ko xol mu am problème dama ko mucc delloo dem jëndi outil wat bi ñu soga a wat rek tourneur yi rar yi ak poli yek croix yek kappa yek moteur bek yépp mako jënd par ben par pièce pièce mako jënd fi dara lu ci nekkon ensemble amut armoire bi it du won ensemble ci benen ki la nekkon mako jënd lépp monte ci DRT yeeg arme bii yëpp maa ko jënd monté ko ci prise yële yëpp coffre yi man maa ko jënd lépp def ko ci lenn lu ci tubaab bi kii daal amut kii nag moom aalee ko liggéey ak kii taxaw waaw leneen li ci des tourneur yi ñooma ko defaral Matar moo ma defaral affaire tourneur yi yëpp moo ma ko defaral moom it jàpp na ci bu baax a baax parce que keroog bi ma ñëwee expliqué ko li mu ma jëkk a wax mooy grand gañ loo ma jox rek baax na ba tay ji tay ji la gëna am courage pour bok ci liggéey bi waaw waaw. gasoil gasoil. waaw. njariñam lan la ci. waaw gasoil bi moom njariñam lenn rek la ci bu xasee ba démarré ba tàkk ba mu jóg ba alternateur ba la génne courant rek bu dynamo bi tàkkee gasoil moom day arrêté moo waral embrayage bi ci diggante bi électronique la embrayage bi électronique la fii nii mën ngaa taal kii kii fi ne nii mën nga ko. mën nga koo taal te du tax moom mu mu jóg gis nga téyel nii mën nga mën nga koo taal te moom du tax dynamo bee tourné foofu ci yow la de bii moo dëgëru waaw fii mën nga ko mën mën nga ko taal nii mu dégg nga te kee du tourné kee moom bu tourné rek xamal ne embrayage bi moo ko tourné waaw. day contact moom da ngay contact rek machine bi démarrer. waaw da ngay contact rek spécial néema ak lampe huile bi yooyu yëpp daf ko am dégg ak lampe charge bi pour muy charger batterie bi contactu charge batterie bi moo nekk nii waaw kii mooy lampe témoignage bi waaw comme fële tamit 380 lay génne 220 moo waral ñu def prise jëlee. yu xonq yi ay triphasé moo ciy génn bi ci suuf manu monophasé la ah ku ko bëgg xanaa ñëw ci man rek Ngagne Ndiaye taalibu Serigne Aliou Fall Mbaor te gëm Serigne Aliou it nag muy dëgg moom laa ko tuddee sax Serigne Aliou Fall bi waaw énergie ba dara faal ah. di chargé batterie bi moom la nan dem ci prise la ma ubbil la ak bii dégg prise bi ci nekk dama ko wutal contact sécurité bii contact la bii contact la bii prise monophasé la deux fils pour alimentation frigo wala nangam nangam Конечно, денег.